qui viennent à l'heure, ils l'ont dit, du curriculum, curriculum qui nécessite beaucoup de moyens, des moyens que l'État ne peut pas mettre à la disposition de toutes les écoles. Et pour pallier donc à ce manque, il nous faut des partenaires de la trempe de Sambadiaï. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain et après-demain, nous serons ailleurs, non pas avec Samandiaï seulement, mais avec des Samandiaï. Il faut que cela aussi, que tous les dignes fils de Khombol soient inspirés par le geste de ce bienfaiteur. Il faut l'accompagner si vous voulez que Khombol rayonne. Et c'est un devoir, il faut le dire. Quand vous êtes natif d'une contrée, natif d'un milieu, il faut se sacrifier pour le développement de son terroir. Il n'y a pas de choses qui soient au-delà de cela. Donc, ce sont des investissements, n'est-ce pas, pour Humboldt, pour le développement de cette ville, de cette commune. Et ces belles réalisations, il faut le dire, L'IF l'a rappelé ce matin, parce qu'il tenait même à venir. Mais il a été empêché à la dernière minute par une rencontre qu'il devrait avoir avec l'IA. C'est ça qui a fait qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Mais il tenait à, venir. Et il est en train de réfléchir à une rencontre d'une haute solennité pour magnifier tous les, tous, les interventions que Sambandiaï ne cesse de faire au niveau de son au niveau de sa circonscription. Donc, euh, vraiment, nous remercions infiniment ce bienfaiteur et invitons aux autres fils de Humboldt à faire de même. Et aujourd'hui, le financement de l'éducation ne peut pas se faire uniquement par l'État du Sénégal. Ça, c'est pas possible. Il nous faut développer un partenariat dynamique et fécond, à l'image de ce que fait Sambadia aujourd'hui. Et les moyens ne manquent pas. Je connais bien Khombol. Je connais Khombol. Je suis venu à Khombol. J'ai des amis. Donc, euh, continuez à les sensibiliser, pour qu'ils, n'est-ce pas, participent. Aujourd'hui, l'école n'est plus l'affaire de l'État. L'école, c'est l'affaire de la communauté. C'est pour la communauté. Il faut que la communauté s'investisse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le cadre de la gestion de l'école, nous avons demandé à toutes les écoles de monter des CGE, des comités de gestion. Et dans ces comités de gestion, vous retrouverez toute la population. Les jeunes sont représentés, les ASC sont représentés. Et c'est cette communauté maintenant qui prendra en charge et de façon performante le devenir de l'école. C'est l'occasion de féliciter cette ASC pour ce que j'ai entendu. Votre participation est belle. Et si les résultats si Khombol 4 a enregistré ses résultats magnifique, n'est-ce pas vous, vous avez joué un grand rôle, il faut le dire. L'ASC a joué un très grand rôle. Donc nous vous remercions et nous transmettrons à qui de droit waxal ku waxam bariwul sa wax warul bari day jox toujours exemple génie. Euh, yéen association ngeen li tax ñu and liggéey ak yéen tey mooy xale su loxoom sete dafay war a mën a ànd ak mag te yaakaar naa ni seen loxo set na te nag euh, Samba Ndiaye xaj na mënul dara day jéem rek ñu ko ëppale fuufa ngi fi mais yàlla moo ko jox xolub li muy am muy néew muy bari mu commencé di ko partager est-ce que xam ngeen fu mu ko jëlee euh, xaj na peut-être lenn li mën naa wax ne xaj na peut-être mbiri suñu borom bi la mais li ci ëpp c'est parce que dafa jaar ci association yi kon dama leen di gën a encourager ci li ngeen di def di former ay kuréel parce que gis nga am na loo xamante ni doo tëba tëb rek mën ko da koy jàng jariñ sa dëkk du loo xamante ni da ngay tëba tëb nit mën na am mais xamul c'est-à-dire jàngul nan lay defare nan lay jariñe dëkkam dina ko bëgg mais du ko man kon yéen ñi ndaw yàlla def na xaj neen seen koom demeegul noonu su ngeen li ngeen am muy seen xam-xam li ngeen am muy seen doole li ngeen am muy seen jot su ngeen ko nangoo jox tey jii seenu quartier bu ngeen leen diggéen ne bu déwénee wala bu ëllëgee bu leen yàlla joxee ngeen delloo si ko ci quartier bu sañ nañ koo gëm mais su ngeen tëddoon ca kër ya di nelaw njeganaayoo baraada yi di ko xëyee di ko boo bu ngeen añee teg ko ci su ngoonee ngeen fanaane ko ba pare bëgg gëmloo quartier bi que ni bu nee lu ñu bu déwé ëllëgee lu ñu am dinañ ko séddoog yéen su moment boobu seen xel war naa tey. mul dinañu laaj lu sax Samba romb fi ñëpp fépp ñëw fii du ni li fi magam nekk école euh, directeur de déedéet ginnaaw raay dafa bokk ci histoire u parce que nag bu leen fàtte ni ñu nous avons habité ginnaaw raay. dëkk nañu ginnaaw raay presque lu mat dix ans kon ginnaaw raay ci suñu histoire la bokk kon nag te suñu yaay ngi nii toog nekk fii ci ginnaaw raay maire bu jóg ki ko jur di cekk fay ak ki jur sama yaay di soxna Diallo daaw ñu tàggoo guddi daaw ñu tàggoo bëccëg kon sama yaay ngi fii kon lépp lu may def lu Samba Ndiaye def aaneen war na ko mën a def si ginnaaw te bu dul loolu ginnaaw raay mooy aaneen aaneen mooy ginnaaw raay lépp boo ko boolee mooy xombol kon dama leen di ñaan rek acte bi bu leen ci jëlee remerciement dong Samba Ndiaye jëlee leen ci ni Samba njaay du ñu ëpp jom Samba njaay du ñu ëpp fulla parce que leen li man fulla laa ko def de dem yàlla may la si tuut nga delloo si di ko partagé ak ñi nga bokk loolu mooy fulla xam ngeen lan moo lan mooy ñàkk fulla ak ñàkk fayda dem nekk ci dëkk di ànd ak nit di daanu di jóg di tële des fois nga mën wala mënoo ñu mënal la ba yàlla dikk pour nga bañ leen a defal la ngay njëkk a def mooy xombal dafa doy waar xombal kenn mënu faa dëkk ah dem la nga am nga dem tabax ko ndakaaru jaaxaan fa fii boo fi ñëw xaaju guddi ngay ñëw bu fajaree nga dem des fois am na ci ñoo xam sax seen parents dañ naan leen xombal baaxul booy ñëw na nga ñëw xaaju guddi bu fajaree nga dem xombal baaxul te xombal euh, nàmm say tànk nga dóor fi sa ndong kon dama ni mbir mi du lay xam nga mbir mi lan la nañ leen dellu si xombol li ñu xombol jox ñu dellu si investir ko xombol bu boobaa xombol dina nekk comme di yeneen dëkk yépp nekk kenn mënul defar ñépp kenn mënul dundal kenn yàllaa yoon ñépp mais nit mën naa investir ci loo xamante ni ñépp dinañ ci jariñoo dellu si leen ñi nga xam ne yàlla wërsëgal na leen xool leen ci exemple bi ngeen dellu si xool lépp lu ngeen mën a dimbalee du mën a dimbalee waa xombal dimbaleewu leen waa xombal da ngeen di delloo njukkal xombale leen jàngal xombale leen yar ci mbedd di xombali ngeen doon daw fi ngeen di supp fi ngeen doon supp jaleen ba tey li ngeen mën ngeen man ko delloo leen ngeen fay naar bi xoromam lii daal la Samba Ndiaye waxoon ni naa ko wax lu lancé ko appel képp kuy doomu xombal nga ñëw jàpp ci mbir mi di ñaan aussi ñëpp ñu jóg takku parce que moom nee na amul lu dul xombal xombal la am xombal lay tiitaroo Dakar gële mu nekk xaj na liggéey da ko faa kii mais bu amoon li ko gënal te bu ko manoon chaque guddi fii lay ñëw fanaan si bu xëyee dem liggéey donc mu ngi encouragé képp koo xam te ne doomu xombal nga te man dara loo man delloo si li nga ci si néew nga investir ko ci xombal bu ko defee tuut yu bari bu yàggee mooy nekk jóob donc loolu daal la amoon li ñuy wax bu sama mag teewee may wax parce que sama kilifa teewee rek damay préféré ko mu wax moo tax damay tënk rek di wax ni lii tàmbali la rek bu ñu yàlla maye gudd fan ak wér li si li ñëw mooy daax euh, may ñaaxaat di ñaaxaat jeunes yi rek ne nañ gën a góorgóorlu parce que ñoom la réew mi yaakaar si ñoom la réew mi na wéeru ëllëg kon lu ñu góor góorgóorloon nañ ko yokk man nag sama wax du si bari bu ma gisee ñuy góorgóorlu li ma mën rek mooy dool leen a ñaax te di wax ni ñoom association bi incha allah rabbi dinaa leen dimbalee deux cent mille francs si guddi gi yoo xamante ni bu soobee yàlla euh, bu kon mbooloo mi euh, kon mbooloo mi ni ma leen ko waxee léegi incha allahu rabbi bu altineeg jàmm Cheikh Sow sama mag Cheikh na leen remettre deux cent mille francs muy loo xamante ni dama leen ko jàppaleen di en attendant di xool nag ba xam lu ngeen def parce que aussi dinaa leen surveiller naa leen bàyyee xel xool lii ngeen sumb it ba fan la mën a àgg kon maa ngi leen di gërëm di remercier ñëpp di ñaanal ñëpp